xam lu koy tegee te yaakaar naa partenariat bi am entre ñun ak sponsor yi mooy waxante ñoom ci kaddu ne dañ koy teel réviser pour sponsor bi mën a gis boppam ci waxtu bi nga xam ne nag moom la ñu moom kon nag programme boo ko tàmbalee nit ñi ne leen 18 bu 18 jotee pile tegal programme bi parce que ki nga xam ne dafa fans Kouthia la toog heure bi di ko seetaan bu heure bi passé day nekk ci leneen ndax tamit xëy na nit ki télévisé 19h30 lay commencé bu commencé 19h30 ken mënu ko changer ci waxtu bobu té ñun li ñuy def nii journal télévisé version humour la kon tamit ñom ñi nga xamné ne yor programme bi dañu respecté heure yi mo tax ñu yor suñu morceau bu xonku émission démb bi nak ñu bari seetaan nañu ko parce que rediffusion bi dafa ñëw ay 3 h du matin deuxièmement amna ay quartiers yu bari courant dafa coupé won kon nak waral nañu koo teel a teg pour nit ñi mëna rattraper wu morceau bu xonku nak du fi jógee fek heure bi nga xamné amon nañ ko joxuñu ko mo waral nak ñu koy téye tey nag benn élément lañuy def parce que dañoo grève grève bi mooy dañu nekk grève en zèle tant que doxaatuñu suñu heure bi nga xam ne moom ñu doon dox du ñu delluwaat tamit di def li nga xam ne moom mooy information parce que kenn ku nekk am nga sañ-sañ bu ñu génnee sa ak ak nga daa def li nga xam ne mooy grève Ablaye Wade moom moo ko voté constitution bi reconnaître ko morceau bu xonk bi ne moo ko waral tey benn élément nañ may mooy ndëpp bi nga xam ne moom la def kër Ablaye Wade bi nga xam ne dañ ñu tey mbokk yi benn spect benn ngeen di am tey li ci des mooy émission démb bi nga xam ne ñu bëri seetaanuñu ko te ñu def ci suñu doole ak suñu kattan ba suñu ñàkk génn kon nag li war moom mooy ñu indiwaat émission bi may leen benn pour wane ne respecté nañu suñu liggéey danañ ñëw liggéey si kat duñu grève di fi bàyyi di dem toog suñu kër dañuy grève nit ñi xam ne wax dëgg yàlla amoon nañu te tey pour seetaan loolu mais def ñu ko kon mbokk yi tey loolu mu nekkoon suñu programme Kouthia Show li ñuy def mooy woo ki nga xam ne moom mooy mbay eh mbay mbay waaye mbay kaay waay kaay kaay kaay kaay kaay